mbokki téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci vendredi ji di leen dalal jàmm ci seen journal de l'arène ma ciy ànd toujours nag ak l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la ziar naa la. maa ngi lay fay soxna Oulimata Seck. Mhm. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. non fanaanoo. alhamdulilah. ana waa Medina. nuyu fa rek. maa ngi lay bëgg bu baax a baax mais l'incontournable bi daal. Mm. ndax diis na de. bàyyi ma bàyyi ko fa rek jox nga ma ko mais dafa diis de. bàyyi ma bàyyi ko fa xam naa lu ma dama nekk taalibe rek di jéem di xam naa lu tax Babacar. ah ah yow su ma rakk nga suma xarit nga boo ko waxee moom mooy loolu mënuñu laa bañal dara nag. waaw dëgg la tey nga xëy def sañse bu baax. macha allah fii nag kontaan naa ci yow. Omar Tawa ca marché mhm. doomu ndeyu Salih Khoule ma ca Zik FM. Mhm. mu booleeg moom mu nekk suma waay. Mhm. di doomu Salem taalibi Baye Niass. moo jaar fii. mu koy nuyu di ko ziar di nuyu waa Massa Salem yëpp. waaye itam macha allah la nga zone. def sa njaxasu Baye Fall ci digg ba. man it Yacine Tall la fi jaar. Yacine Tall sama rakk ju baax am jom. nekk Medine. nekk ca point E. point E xale bu yaru kon soxna Yacine Tall maa ngi nuy nuyu yow tamit yàlla na machine yi gën a yokku loxo yi gën a wér. amiin yaa rabbi ñu dem seetaani revue des titres te ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 2 avril 2021 dañuy ñëw gi yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko sunu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëwati fenn la ci xëtam mu njëkk combat royal ba war ñu Eumeu Sène mu toog ca bang ba mel ni ki nag moom Eumeu seen ba nga xam ne nii nekkoon na fi roi des arènes daal fi mu nekk nii sursi la am maanaam daal la koy yoot moom mooy ndam mu ko jik ci kombaam ak ka nga xam ne moo di lag de Guiers numéro moo tax yëglikaay bi daal la mu xëy xam le mooy Eumeu na moytu beneen défaite li moog li ko daloon ci Modou Lo moom Eumeu Sène na moytu loolu kon fi mu nekk nii daal moo d'ordre bi wala kaddu gi genn kaddu la mooy jéem a gañe combat bi loolu daal mooy li nga xam ne ni moom lan gis saa com bi Jóob tamit wax na ca nee na loolu daal mooy kuy jig maanaam gañe ngir jéem a jubóog ay sam Lac de Guiers numéro 2 demoom coach su jabon moo xëy tey di wax ci expert la ca wàllum boxe de komba wala boxe sport de komba moom coach su jabon nee na Lac de capable na ngir gagné mépp mbër mu mu mën a doon daleen itam Lac de Guiers mbër mu naqaree manœuvre la parce que nag loo ci mën a dégg mooy maanaam daal moom lag maanaam ni muy bëree da koy teg su fa ci aw yoon mel ni ki géej waaye fi mu nekk nii nag am nañ teef ci lag lu toll ci deux cent pour cent yëglikaay ba moo xëy ñëw sunu làmb di dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ka nga xam ne moo di Sidi Jaxate ca Thiès bërki démb daal def na fa jàkkaarloo bu doy doy waar promoteur ba nga xam ne moo dëkk fa nga xam ne moo di Kajoor la mu def nag mooy Ousmane Gandigal ba mu jox avance ak ka nga xam ne moo di Sanfidie ñaari mbër yi daal nga doon defal ab la nga xam ne moo di signature de contrat mu nga taxaw ci seen digg ñaari mbër ya taxaw saafee nga rango ay kurusam ak i te ak i sentir yi bàyyi faalam Ousmane Gandigal solub kalam taxaw mel ni kon daal boo bëggee dégg-dégg moom maanaam ca Thiès le 10 narta yomb ndax nag ñoom ñaar ca la ñu fas yéenee bëre defante ba mu saf-saf ka du kenn ku dul si Sidi Jaxate ñeneen ñoo xam ne nii moom fi mu nekk nii la ñuy waajal mooy tournoi yi nga xam ne ni moo war a am ci Tunisie moo xam Anta Samb la ci samedi ji lay waaj Adama Diatta caaka fay moom dimanche ji la ñu fas yéenee waaj sunu làmb moo xëy ci ñëw dinu xamal lu mel ni ki noonu buñ fa jógee record la ñuy dem record tamit ñëw na ca wàllum tournoi bu ma nga xam ne daal moo ram ci Tunisie maanaam daal ci loo ci mën a dégg Adama Diatta antaak caaka fayek ñoom ñi ñii daal man naam daal ñu dem fa nga xam ne moo di kon ca Tokyo yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu ko mel ni actrice de l'arène ba moom la ca nekk mooy ama seen convoqué nañ ko 16h45 yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Lac de Guiers 17h docteur Alioune Sarr mi fi jiitoon làmb ji nag nee nañ daal maanaam dimanche ji boo sàgganee des na ko gis fa nga xam ne ni moo di ca arène nationale ngir mu ñëw seetaan si boobulee bés leneen loo xam ne ni dañ koy wax muy nekk fa nga xam ne ni moo di ca Equivox di ay vidéo yoo xam ne ni daal yooyu làmb la yoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi cay wax ku mel ni Adama Diouf mu ngay wax ak wulli nee na maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex te itam duma duma sax moromam te buñ ca yeggee dana xam ne duma moromam nee na nag donte dégg naa ne may nañ ko oto waaye baax na ne na yéene naa ko oto ba yàlla na ràpp ak jàmm waaye buñ sëggee ba siggi dina xam ne maak moom bokkuñu tey suba waxi noppi keneen koo xam ne la muy waaj moom mooy lig Nicolas le 6 avril la koy waajal mu di daj ndaje moo xam ne ab jàkkaarloo bu rëy rëy la fas yéene def fa nga xam ne moo di ca seen TV ñam ko nar a seqal nag mooy Modou Lo le roi des arènes Ama Baldé sa lubu ndaw ba ca Pikine loolu maanaam talaata jii ñu Sen TV Luc Nicolaï l'homme des grands événements le le promoteur bi nga xam ne moom moo dëkk ca Petite Côte ba mooy waajal li mardi fa nga xam ne moo di ca seen TV mel ni kon daal ku yebu tamit namm say bët de te xaar waaye duñ ca yem de prince tamit mu nga ca Equivox su TV moom itam mu ngi fay wax suba ci samedi ji daal prince si soxla la mu def mooy ñeenti million la teg fa nga xam ne moo di ca arène nationale la maanaam lambi simple ku daan jël loolu tamit mu mel ni ki wax na moom prince ak la nga xam ne bëgg na koo def ren ci lamb ji nee na Gris Bordeaux ak Yékini Senior combat bu la bu jaar yoon la te itam bu ñu raisonnable pare ngir bëree moom prince ne na pare na ngir bëre mara boog ngir tëgg combat ba ñaari mbër ya waaye presse yemu ca ay way nag la tëjee la nga xam ne moo di wax ja mel ni kon daal olof a koy wax deret du fen waaye boog boroom a kay wor waaye prince daa mel ni warut deret ja ndax sëtulu su ñili suy soxo borom kooraaya yaakaar naa ne gomis su woyee war naa mën a way ba pare itam mu bokk ak cekkeen ya nga xam ne ñooy cekkeen ya ca maareen buñ ko waxee mooy coon seek na ko yàlla yërëm ak famille booba ndax moo ko waxal boppam moom presse ci su TV ñépp di ko dégg waaye li may wax daal tey mooy loo ci mën a dégg ulimata ni mu xëy see ci zone loolu am na solo trop ulimata seek borom Medina voilà moo nekkoon donc suñu revue des titres ak suñu incontournable Babacar di leen jaajëfal encore di leen wax rek ni yéen a ngi ci seen euh, journal de l'arène tey nag dañuy euh, doore comme d'habitude ah ni ñu koy defee ci suñu quotidien bi di suñu làmb tey suñu làmb xëy wax ni euh, kii di Eumeu seen contre Lac 2 ci la daal di ñëw ci bés bu rëy bi di le 4 avril kii di Eumeu Sène nag di ex roi moom nee nañ ni ile est en sursis kii di Sancho bi Saccombi Diop. moom daal di cay euh, wax ne il doit se réconcilier avec ses fans Babacar euh, ñu ngi lay déglu ba xam loo ñuy wax ci loolu. waaw loolu day boo xoolee wax ji maanaam yépp dëgg la parce que bu ñu nee mu ngi nekk ex roi bi. Mm-hmm. maanaam fi mu nekk nii. sursis lañ ko jox maanaam bu ñu nee sursis nag mooy koo xam ne da nga juumoon ci benn affaire wala jëmaat ci benn affaire te waaw da ngay ah, la ciy fekk du neex mhm. ah defe naa loolu tam dëgg la parce que li mooy fi mu jóge la moog la moog Modou Lo mhm. mu nekkoon combat capital combat royal mu ñàkk ko mhm. defe naa tey bu ñëwaatee war a bëreeg Lac de kon defe naa bu ñu waxee sursis xel da koy dal di nangu mais sport moo tëdde noonu ah parce ñoom ñaar ak lu mën a xew rek sam dimanche il faut am ku gagné am kuñ gagné. dëgg la mais dama naan dina metti nag ci ku ñàkk. Mhm. waaye du yàq pour man li sa surtout carrière mën nga ko continuer. Mhm. parce que sport moo tëddee noonu. dëgg la yaa ngi dégg. Mhm. mais yaakaar naa ne ku ci ne si ñoom ñaar yaa ngi def luy tax nga am ndam. parce que di def luy tax ñuy am ndam moo tax ñuy entraîner di moytu di jóg yenn heures yi di def yenn yi di sonal seen bopp ngir bëgg am ndam ngir bëgg a bëggee seen ay kon defe naa nag ñoom ñaar ñëpp tey mhm. ëmma ndam la bëgg lak ndam la bëgg mais bon mhm. dimanche incha allah rabi yàlla nañ ko fekkee tal ko la carte dañ xam fu ndam lay fanaan mhm. euh, ni mooy Lac 2 moom nag euh, kii di coach Jambong itam dafa daf ci joxe xalaatam ci kii di Lac 2 ne moom euh, il est capable de battre n'importe n'importe quel kii moom sa santam bi ngay bi bi ngay kii sama sama waay la coach Jabon depuis depuis Paris la France Jabon. coach Jabon ah. Jabon Jabon. ma koy nuyu bu baax a baax a baax di suma soppe moom suma gain la. moom tam dafa yàlla daf ko dimbali mu yëngutu ci wàllum. sport de combat xee di ci tàggat ay nit ay athlètes rawatina. waaw li mu wax ci lagit defe naa ne sport de combat. bu ci waxee war des na ko mën a wax. parce que lag nee na capable na pour daan adversaire a doon waaw parce que ku bëreeg baabooy daan ko ba recours a tax ñu ne combat ba amul sans verdict la daan yeneen daan Papa Sow mhm. daan Tafatine mhm. daan Isaapuy macha allah ah <laughs> daan Zos kooku tam maanaam bu ñu la nee mënta daan adversaire bu mën a doon ci làmb mhm. man duma ko mën a gëm parce que la tax mooy maanaam bu mënu kon foofu mu jaar yëpp du fa génn kon li ko su jobam wax ci lak lu am la mbër mu capable la pour daan n'importe quel adversaire yaa ngi dégg mais li ma la waxoon sànq laa lay waxaat si ñoom ñaar ñëpp actuellement fi mu nekk nii daal ku ci nekk pare nga am na nag lu leen di tàqale am na loo xam ne tamit ci bés bu ku ko ci def boo sàgganee moom danga nga gis loola bett lool lool lool lool lool lool mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu nag waxi biir la dañ leen koy bàyyee ndax ku ci ne ñu la wër xam nañ li nga war a def. kon ñu bàyyi ba bés ba. incha allah buñ fa jógee dañuy daal di dem ci euh, face à face bi nga xamante ni amoon na euh, bakki démb. Mhm. ca Thiès euh, te si kii di di Diakhaté mu jaaroon fa. Mhm. donc diggante Safi Dieng ak Ousmane Gandiga Gandigal ñi nga xamante ni ñoom daal nee nañ ils ont mis le feu à daal tàngal nañ fa ba mu tàng jër. du loolu xamoon na loolu bettuma. Mhm. ñoom ñaar dama leen a xam dama xam Ousmane. Ousmane Gandigal maa ko xam ndax maa fa nga xam ne moom mooy Saly. Mhm. mu fay liggéeyee. yaa ngi dégg di doomu Gandigal mhm. di mbër mu am jom boole liggéeyam mhm. ak la nga xam ne mooy làmb mais saa yoo ko joxee komba bu ne kookaa man moo xam xoog mu xale la wala mu mën a doon mbër ma keroog bëgg adversaire ba si bëgg génn mu tëkku signature am itam day neex saaf yi nag moom bu toogoon fii tey yow doo maanaam da nga am problème biir buy metti ndax ndax saf xorom ndax ñoo ànde fii Dakar wala Thiès jëmali Kaolack dugg mu nekk ku saf xorom mais nekkit ku mën a bëree mhm. kon defe naa bu ñu leen joxee ay micro ne leen def leen face à face mhm. ku waxuma la mii la fa waaye lu ko raw sa mën nañ ko def parce que day neex moo tax Sidi Diakhaté tamit ñun suñu tool ñu ngi koy remercier parce que mhm. vraiment mu ngi yokku làmb ci côté parce que tey ni mu mel ci région de bu ko Diourbel amee euh, Tamba am ko Kédougou am ko Kaolack am ko keneen am ko keneen am ko Saint-Louis am ko mhm. na tax région yi lamb gën fa dund comme ni mu koy dundale Thiès moo tax Sidi Diakhaté mhm. vraiment mention spéciale si taxawaayam si région de Thiès mais ci taxawaayam ci Sénégal en général rawatina lamb ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom mhm. euh, Sidi Diakhaté bu ñu fa jógee dañuy daal di dem fële ca Tunisie nga xam ne tournoi qualification au JO amoon na fa donc kii di Anta Samb mi nga xam ne mooy représenté mën nañ ne mooy euh, bokk na ci mbëri jigéen ñi moom nag di waajal boppam euh, ci samedi gi Adama ak kii di caaka dimanche ñoom itam war a waajal waajal loolu. waa ñu ñaanal leen ndam rek soxna si. parce que li tax mooy ay doomu Sénégal lañ te mhm. drapeau réew mi lañ gàddu. Mhm. kon defe naa ne ñu ngi leen di ñaanal muy Adama Diatta. Mhm. Euh, Anta Samb. Euh, caaka fay ñoom ñëpp daal ku ci nekk. ki wàcc samedi. di Anta. di moins euh, defe naa Anta la. mooy wàcc sa waaw mooy wàcc. maa ngi jum na ah, waaw Anta mooy wàcc Adama wàcc mook caaka ci dimanche ji ah. yàlla nañu am ndam. amin mm-hmm. amin yaa rabbi yàlla nañ ko yàlla defal mm-hmm. ay ca moo doonoon suñu dernier élément wu quotidien bi di suñu lamb dañuy daal di rek dikk ak bi nga xam ni mooy le record mm-hmm. le record le record itam dafa xëy rek wax ci euh, a Anta ak kii di Adama ak Thiaka Thiaka Fayan ah, noonu la noonu la donc moom tamit nee na début du du TQO ce vendredi en Tunisie ndax ñoom ñett ñi est dinañ gis Tokyo maanaam ndax dinañ dem fële ca Tokyo. yàlla nañ fa gis. amiin yàlla nañ fa demit amiin parce que dem fa mooy gën a yokk Sénégal. mooy suñu sakk man li may wax rek mooy ñoom ñu nga xam ne ay mbër lañ. parce que mhm. caaga mi mbër gi dem adressé ngor ku ne gis na ne. Mhm. moo fa bëree finaalu fa. Mhm. ak général Malika ci lit simple kon mbër bu athlète la boo xam ne buy liggéey la mhm. defe naa tey itam bu ko équipe nationale soxlaa mu dem fa mhm. muy ñoom Anta ñoom Adama ak Thiaka ak yeneen Sénégal yi nga xam ne ñoo ngi défendre couleur réew mi mhm. leen état gën a may doole gën leen a jàppale gën leen a ñemeloo ba tax ñu mën a dem ci yi man fa jongante pour Sénégal mhm. ñu leen di ñaanal ndam topp si ba ñu mën a dem Tokyo ci li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques yooyu nga xam ne yaakaar naa fa la war a amee. amiin yaa rabbi moo nekkoon euh, loolu la ñuy tëjee tey waaye balaa ñuy pare rek dañuy daal di euh, wax ci euh, interview bi nga xamante ni amaloon nañ ko barki démb fii ci biir Equivox TV. Mhm. mu mel ni da nga dalaloon kii di Prince Sissoko. Mhm. donc jot a waxtaan ak moom loo ñuy wax ci loolu. waaw Prince dalal nañ ko barki démb parce que li ko waral da ko olof ko wax ku bokk si gétt gi li ma da naan ci meew mi te Prince naa xale la boo xam ne mhm. bu jàngal am xam-xam yor ay diplôme ba pare ñëw dugg si làmb la jël xaasam di ko si dugal nekk promoteur de amee groupe bu ñuy tuddee PABC Events. Mhm. yoo xam ne mu ngi yokk làmb depuis ñu ko gisee mu ñëw ci ba tey yemu ca tey mu ne day dugg ci tournoi simple bi. Mhm. jël 4 millions teg ko fa nga xam ne mooy mooy es euh, arène ci mhm. samedi ji suba. defe naa kon kooku euh, dafay baax ñu boole ko ci te Equivox li ma la wax rek ñépp la fi nekkal. ràññeewul ma Samba wala ma Demba. loolu mu waral ñu dalaloon ko mu wax ci tournoi boobu. leeral lu bëri tamit ci yoo xam ne ñu mu ngi dund dund ak ñoom mhm. leeral tamit ci diggante ak la nga xam ne ni nii moom war a mooy combat bu ñuy wax ci diggante Gris Bordeaux ak Yékini Junior moom mu ne pare na pour tëgg ko mhm. mel ni kon vidéo moom ku dem ca Equivox TV rek di nga seetaan lépp lépp bu soobee incha allah di nga am kii di euh, Prince Sissoko mhm. bu soobee yàlla dañ koy tëjee nag ak euh, jàkkaarloo bi nga xamante ni mooy am diggante Modou ak Ama Baldé fële ca Sen TV mardi 6 avril incha allah Babacar waaw noonu lay demee parce que jàkkaarloo la boo xam ne bés la ci bés yi ndax combat boobu nag bu dëgg caaxaan jeexee rek. pour nga gis combat bu ko gën a rëy dina jafe. ndax la tax mooy xam nga làmb soxlante da cee baax. dëgg la olof ne na lu ñor tàbbeeg lu nga sëmandi duñ benn te dañoo soxlante. Mhm. ndax dañoo bëri woon ca parcelle. Mhm. lit simple moo du daan dafa ama. dëgg la. ama di ko wër di ko wër di ko wër di ñàkkante ba tey mu jàkkaarloog moom te mhm. taxaw ne maanaam bu muudu yoroon beeke sax dinaa dajeeg moom fël ko mu béykee daanu ñu bëri maag moom ndax soxla ko kon ama soxla na ko. Uh-huh. bëri ki dem ñu gisaat ko mu génnaat ne juróom-ñaari Modou Lo maa leen man uh-huh. Modou def fi conférence de presse ñu ne ko sa diggante ak ama mu ne ama na xam ne du ma ñeexu ñebbe kon mu mel ni Oulimata <laughs> ku bëgg fu mu fanaan la ak ku bëgg ko wettali xam nga ñaar ñooñu tëj bunt bi dinañ doole. <laughs> mooy ñaari ñooñu loola léegi ni ko laay andi. macha allah yàlla na la yàlla may ay bët may ko sénégalais yépp may ñu tala fekk waaw ak <laughs> non dem bi moom day am soobee suñu borom nga jàkkaarloog seen TV mhm. di enjoy Modou Lo mhm. Ama Baldé mhm. ak ko Nicolaï te léegi yàlla dogal na ne nag ah waaw promoteur la boo xam ne mhm. innovation yi mu indi ci làmb bëri na mhm. ñu koy ñaan rek yàlla na ko yàlla musal musal bépp promoteur wala bépp doomu aadama bu mën a doon amin moo doonoon nag suñu dernier élément tey suñu JDA di suñu journal de l'arène mhm. ñu leen di jaajëfal bu baax yéen yi nga xamante ni yéen ay euh, tiitaro di safoo làmb yéen euh, amateuru làmb di leen euh, rek jox dig daje ëllëg incha allah mais balaa boobu dama lay bàyyi Babacar bu dee ni da ngay tàggatoo <laughs> waaw waaw tàggoo bi daal tey leen rek sant yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi gërëm ñi nga xam ne

Ndiaye yal na ko yàlla xare aljana nekkoon ndeyu ñëpp xamewu koon jarbaat mm-hmm. ak doom ak lépp la yemaloon ci kër sama nijaay mm-hmm. jiitu fa yaatal yaatale mm-hmm. parce que lool dafa am solo si aawo si kër kon yal na ko yàlla xare aljana di ko jaat ay doomam Aline Badangom mi nga xam ne tamit taaw la bu mat taaw maa ngi koy ñaanal yàlla fi nga xam ne fa la maam yi taxawoon way jur yi taxaw fa yàlla na taxaw fu ko raw te mu ngi si yoon woowu muy bara di ko nuyu di nuyu ay rakkam yëpp ñoom Moussa ak Serigne ak ak Say Ngom ñoom Maada Khady famille bi yëpp daal nuyu naa leen famille ngomeen bu nekk Mbomboy Thiaw Diouf ak képp kuy dund wër turu Mbomboy rek maa ngi lay nuyu di la jardin ñaanal jàmm ak suma nijaay Ibou Ngom tamit dëkk bi ñuy wax kër Julde ñoom ñëpp maa ngi nuyu sama nijaay Ibra Fall Njaañ Mout Sarr ñooñu ñëpp samay tonton lañ parce que samay xarit ni jaay lañ samay doom baay tamit kontaan naa ci ñoom ndax démb jël nañ oto jóge ak yaay fekk si ma foofu ñëw jàppale si loolu te defe naa la dem ulimata ku la ko defal nga waxoote mba maa ak ñoom papa lañ bokk kon saaliw ak sama ay rak yëpp suma papa mhm. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm yoo xam ne àddina mu solo mhm. Sénégal nag la maam Abdou Aziz baax waxoon moo fi ne bu mhm. ne nañ tàppe xol yi lenn tax mu wax ko rek waxut njaago bi waxut séréer waxut joabal tu waxul tukkulóor xam nga lu muy wax mhm. ñun ñëpp ñu nekk benn yéneente jàmm tàppe xol yi ànd te yàlla tax yow nag ma lay wax ne mm. yàlla la yàlla may fan wu gudd defal liwér ko yoon defal ko bépp doomu aadama loo ci mën a dégg man kontaan naa ci yow ay ca Babacar ñu xam ni tey nag tey le vendredi saint ah mu mm-hmm. doon euh, tey fête bu am njëriñ lool ci suñu mbokk chrétien yi mm-hmm. euh, ñu leen di jaajëfal di leen wax juste bon fête ndax diggante bu rafet bi entre jullit ak chrétien Babacar loo ciy wax ci loolu waaw loolu daal di ci naqar yàlla rek. Mm-hmm. di ci ñaan yàlla mu wàcce ci jàmm Sénégal parce que chrétiens yi comme ni ko waxee rek ñun ak ñoom mhm. maanaam famille lañu maanaam parce que da ngay ñëw ci ci famille bi fekk fa chrétien ñëw fee fekk fa jullit mhm. man mi di wax ak yow mhm. daal na ma am na ay sama doom bàyyi yoo xam ne ay chrétien lañ ñu sant joom dëkk ci ndondol njamaan kon chrétiens yi dëkk foofu yëpp ak fu dëkk Sénégal maa ngi lay wax bonne fête Pâques rawatina suma jigéen série docteur Macoumba Diouf Louis Senghor moom tamit gën a sax Sénégal amiin yaa maa gën a kontaan baabakat donc ñu jox dig daje euh, téléspectateurs yi ba ëllëg incha allah jaa ngeen jëf